pas comme saa ñu xool euh, nu ñu la koy yónnee léegi ci guddi gi euh, nga mën cee jot comme ñii ngeen di gis ah. euh, mooy sunu téléspectateurs yi nga xam ne semaine bi mm. jot nañu leen jukki mm-hmm. maye nañu ay xar maye nañu ay piis mm-hmm. joxe nañu ay jaaro or Mm-hmm. joxe nañu ay dund dañoo maye ba maye ay ay saaku pombiteer mm-hmm. joxe ay saaku soble joxe nañu euh, El Hadj Man Mbaye Garmi ay diwlin mm-hmm. euh, ah, joxe ay dund yoo xamante ni mën na jëriñ njaboot gi yëpp nag du jeu concours du ngeen di gagné dañu leen ko jagleel rek ci waajal tabaski ci télévision Futur Média ah, ginnaaw lu mënul ñàkk faaw mu am nag numéro téléphone yi ngeen di gis ci suuf rek ci ngeen mën a wootee xar yi nag benn bu ci ne am na kii la ñu tuddee Bouba Ndour euh, waajaa ngi xar bu mag bi bi defe naa moom la ñu mujjee joxe <laughs> te bu ñu koy joxee xam naa ni puissance mi ci boppam oh. euh, moo nar a ñëw ñu àndandoo joxe ko oh. kii moom dañu koo teel a am na xar bu tudd Lamine Samba ah. am na xar bu tudd Kouthia à propos de Kouthia mm. saison bu bees bu Kouthia show lundi mm. euh, incha allah à partir de 18 heures mm. euh, ci la koy tàmbali ci télévision Futur Média donc na téléspectateurs yi dugg ku dugg rek tey ñu jukkee la enveloppe bu toll ci 100000. li jënti leen seen bopp ci kaw ngeen woote ba jot ñu en direct ñu may leen ci xar yeeg jaaro oor yeeg pièces yeeg bon de couture yi waaye cent mille francs it euh, boo ko amee dañuy jël encore ce numéro de téléphone boole ko ci euh, xar yi nga xam ne ni euh, dañu koy waaj a séddale ñun a ngi fi nag am mbégte lool gunge leen ci guddi gi Adja Soda Bousso mm-hmm. El Hadj Ban Mbay Jëy Fay Bayu Caane suma waaji mm-hmm. nga xam ni kenn gënu ko ni ma ko naan Caane sama xol bee tojotoo ci moom ñu dénk mu nag nit ku baax ndax yàlla day boole ay nit abuga it di nit ku mm-hmm. baax baax moom it ñu ngi koy ndokkeel di euh, ndokkeel ku mel ni kati création nga xam ni lu ma sol moo ko ñëw donc kati euh, bëgg loolu ajot sooda bu so sama woon daal la dëkk fonk lool lool Habib xale bu baax wallaay ñu dénk ko Habib wallaay lu ma sol rek moo ko ñëw Habib moom lañ ah, dëkk sëñ Mourou Habib Mbacké moom kati ah. création moom sëñ hmm. nit ku baax la sëñ Abdou borom dër bi li jënti ko leen léegi ñu ñu jënti ko gis ah. noonu hmm. Habib moom ngay gis noonu mi ñu dénk kati création moom hmm. Serigne Moura bi Mbacke lañ ko tuddee. macha allah moom sëñ Abdoulaye Mbacke. moo ko moo tax am talib moo ko tax am taalibe sax moo ko tax am taalibe sax. nit ku baax la ñu ngi koy ndokkeel bu baax te hmm. ah émission bi hmm. wëndeelu la de waaye hmm. social la de. social la ku dugg am sax mille cent mille francs. fii réew mi tol confinement. dëkk bi ne kàkk. ah Soda Bousso social la. ah loxo san. Ah. fii. Ah. ci TFM. Ah. ci émission bu mag bi wëndeelu. ah lii social la Baye Cheikh. waaye dugg leen waaye. <laughs> dugg coom. voilà ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen di xaar ci euh, téléphone yi c'est vrai que. Mm-hmm. crise bi. Mm-hmm. dafa laal ndaanaan yi nag. Mm-hmm. gëj nañu Sorano. gëj nañu Grand Théâtre. Mm. géwél daan na way ba mu yàgg rek. Mm. kamu way. géwélam jiital ko ñu dagg way wa nga dégg géwel ba ne der oh. mbooloo mi bilaay war wala nga dégg soraanoo wallaay xam nga yooyu c'est dommage El Hadji man Mbaye Garmi mbay ah, Mbaye ndokk yàlla rek bi nu yàlla sedde gor ñu baax ndax bu ndax bu amul woon bàyyi seexum fu nu jëm am léegi yaa ngi tudd rek dëgg dëgg avocat yi mm-hmm. ma bi dugal maître Khassimou Touré dugal ko kay bàyyi seex mm. bi bi noo xencu xaadim rasul mm-hmm. maam Cheikh di ko xencu mm-hmm. ci maamam dëgg-dëgg la ñu xaadim rasul mm-hmm. mu soxna Bintu Touré borom ngeen gi new yaa tudd léegi avocat yi ma tàbbi ci maître lii ka ba eh. ah eh. mun day faat faal eh. mun day faat faal sàmm sall maa tëdd wala jéey ak alaaji Cheikh Ba bàyyi Cheikh am na yoo xam ne bu xewee ci réew mi. Mm. te dara yënguwul. Mm. am na gor yu baax yu nekk ci ginnaaw. Mm. ana Maxtaar Jaw doomu ndar bu mag bi. wax dëgg de <laughs> eh Baye Cheikh. <laughs> gaañaa ngi Baye Cheikh bu nit alal da ngay tabbi xool ñu baax. wallaahi sàn xam nga oto pneu secours daf cee baax. waaw am na ñoo xam ne ñi bi lay mbay naaj bi lakku leen. dara warul la ko gor ñu baax ñu ba ana daroobe bu mag bi ngeen léegi. marché wa Njaañ. yu sunu yu sunu daroo bu mag bi. dem ba sama xërifaal ak sàmbilul xërifaal man dama ko namm sax nag. Hmm? ah dëgg dëgg Soda loo ko namm doyul de namm naa Youssouf ngi fi. loo ko namm doyul de. nun de mbay nun de mbay dëgg dëgg tubaarkàlla. Ah, namm naa ko de. namm naa ko de mi ngi naa ko de bu la déggul sax Mara Mara Dieng mu ngi lay dégg. mi ngi laa dégg mbay jeng mbay mu ngi fi. <laughs> te noonu ba jigéen maama moo waxoon bàyyam bu newee ñu néew néeg maa oh, ngi. dëgg de. way na Ndiémé Ndiaye ak Sare Ndiémé Ndiaye aw jërëndum jàmbaar mu daaw kumba jooju biram kumba koo faal janoor ay maamam ñu daan jaay jaam ca gore boobu gore tudd gore biir la tudd. biir la tuddoon. nga ni Malick Faye Bara waaw. nga ni juddu ba la. waaw du nax yu sumuk. fa mu bokk la. waaw juddu ko nax mu faj jëng may sa. Hmm. bokkum ndeyam rama jëng may sa. Hmm. galaru ba Mamoun Ndiaye du nax yu sumuk. déedéet juddu ba la. ndeysaan. Soda juddu ba la. ndeysaan juddu dafa am solo bay Soda barke être noble c'est le sang. Hmm. être leneen c'est le sang. dëgg la waay mais noblesse. dafay feeñ ci njàmbaar. day feeñ ci garme. waaw Mara boo ko gisee gisoo ko il a peu de parole. waaw doonul wax ju bari. déedéet déedéet la doon. Mm-hmm. gisoo ko nii. Mm-hmm. waaw te naxul yuusu. déedéet déedéet déedéet du duba la. yal nañu yàlla bàyyi ak diggantu ñu waaw yal nañu yàlla bàyyi lu gën waay oh. bi nga gën a ñu ko Fallou Yacine. léegi ànd yi neexatul. waa dërëm waaw moom dafa xam nga xam nga ànd <laughs> confiance da ci baax waaye ñu bari ñu ngi foye lu am solo la confiance mooy ngiro mm. fidélité mm. l'intimité dafa am solo mm. tubaab dafa fonk loolu bu demee ba ngéwale ne dites-moi celui que te fréquente je te dirai qui tu es pas montre-moi ton ami je te dis ta nature kooku caaxaan amatu <laughs> ci ci fidélité moom nga ñëw. ah c'est important ci laay ñëw. waaw waaw ba tey am foo ma yóbbu. waaw ci fidélité. Euh. Pape dëgg xool Ndeye Fatou Diallo. Hmm. ah mi ñu dénk Ismaïla Lo. ah yow tam eh. bàyyi Marilo sama moo jur mari moom may ma. yaayu Marilo. sa doom defa jur may ma. Ismaïla Lo hmm. xam naa ci dara waaw fidélité waaw ba pare nag di jaay dama lay këf këf ma ni seet nit ku baax koo hmm. xam ne ku ko gën yeewul ci réew mi déedéet kenn du ci génn Ismaïla Lo déedéet waaye hmm. danoo defal danoo defal Ismaïla Lo defal ko euh, trophée ba ma ñëw fekk Ismaïla Lo di di di di di di bale dama solo toogal bu leen fàtte li jënti ku de ku dugg li jënti boppam ñaar fukki junni waaw ñëwal Ismaïla Lo man moo ma doon defal jus ñu toog di waxtaan ci mbaaxam ci mbaaxam mooy jour bi ñu koy bi ñu ko bi ko bi di jox trophée ak fi mu toll ci àddina ak fi mu toll mbiibam ba waaye moom it juddu ba la hmm. di ko njaay caani sekk maram jom ngalandu koo mbay maat jom teg saar hmm. sipp jëm géej may leen jëm dem dakaaru asufal daa moj kuma maaraay hmm. badalu loo baayam sambaloo baayam mbokkum ndeyam sàmbaloo mari njaay badara ko yar ku mu am jigéenam la ko tuddee mari loo ku doon tuddee Marie Yves Diagne yaay tut ak baxaw nday Ayda wallaay yaay Sofia ma ma woyoon ma woy ma maa nday Ayda dimbali ma Sofia sama gel la eh, ki ne loo yaay maam mi mu tegoon ak Al Ndiaye moom la wooyee takk dënn moo koy fekk mu def Marie waaw waaw bu soo <laughs> fi ngay xamee Ismaël Lo ma wax la li mu def buggul sax loolu Adja Kine Lo yaay Papito dafa am benn xaritam boo xam ne tubaar kala rek yëfu jamono hmm. nekkatu fi nattu ñëw ci moom hmm. Hmm. chaque weekend kër Ismaël Lo lay weekend ak ay bagaasam yoo xam ne kenn du koy pour wax la baaxay Ismaël Lo xam nga yu baax yi bu xarit ba ñëwee te jamono nattu fu ne lay dal moo tax yu baax yi waaye day naxanteeg moom dëgg la waay yu baax yi dafa jar a dama ne sama waa jàngoogu nag ñëwal sunu xuju kumbag faalo xuju kumbag gaynde xuju kumbag yàlla ak maam Njaay seeg daaro alolo sëriñ bëgg jaafuñ kooku mu baax. allo. li mu dégg yëpp. wala nga xam Ismaël Lo nga fekk Genève. waaw waaw. waaw waaw Sénégal sax xam nañ ko ay des boo ko fekkee Genève nga xam ne nga xam ne dëgg nañu des ko a ah, noonu tubaab yaran si yaran ndànk oh. dugg toog waaw mu teg guitare ba nga dégg taaja boobu muy mama da di dimbali ma wax na fëran day ay da gars yi di loolu di ku baax jël ay rakam teg Ismaïla deful dara sambalaar e eh, maman ndey ji dimbali ma eh, nabu caat ñoom ñaar bokk ndey ak baay kër bi mi sëy la ko way di ko wéetal nga ma ay nabu caat <laughs> nabu wéetal ñoom dañoo jur doom may ma lii nday ayda def dafa jur mariloo may ma nit ko Ismaïla mooy taawu nday soxna yàlla yàlla guddal fan waaye kan ko dénk sooda waaw hmm. muy fa fa jàll sa jabar waaw bu sukki na gay abbaale ak papa gay moo bokk abu gay wallaay wallaay moo bokk ak papa Guèye mi ñu dënk ajaratu ndey Anta Fall ñu ko naan bàjjen Guèye Abali mbokkum yaayu ulay mbokkum yaay ulay jàllo bàjjenu ulay nit ku baax ki mbay Guèye Faye njëkk a wax loolu ca Bercy dëgg la bàjjen ñu ne tuf ne caane fay abu gay loolu la def geroog ngénte loolu camion laax la ñu camion laax bokkoon naa ci ñu koy wàcce cay mbaax waaye yàlla weddi waaye li mu yor bari na Baye Cheikh hmm. mag si fu ma la de jëlal àggalil fa nga damaa bëgg a ñëw ci dugg dugg waagaan li ma séeréer si def barki dem dama ne tëll tukaar di siyaar saa maam ñu tegal ma ñaari baaf naan biram kande waagaan dugg dugg waagaan hmm. xanjig waagaan ci droit bi bi nga laal léegi ci laa jëm bàyyi seex ci dugg dugg ji ci dugg dugg waa gaan waaye bàyyil ba saa mag pare bay gi nga jël sa baax na parce que lu baax loo ci yokk ñu ngi lijjantiku lijjanti leen seen bopp woote leen ku dugg ñu lijjanti kook ñaar fukki junni Papa Mbaye xam nga lu baax moom la mm-hmm. mm-hmm. nga def rek la mm-hmm. lu baax dañ koy yokk waay bàyyi lu baax bu ko kenn suul wallaahi wallaahi ajaratu ndey faat ndey euh, faa jàll moomu nga xam ni ban koy jox Ismaïla du tey waaye nag yaayam a baax moo daan ànd ak ajaratu maa toxamaa jóob yaay maam jaay waaw waaw e kon paap la lu mu jur war naa baax. Fa Diallo lu mu jur war naa baax. waaye parce que lanu doon la. Mhm. gis nga àdduna bii ñu ne. Mhm. ku yebu di def lu baax. Mhm. ku ko ci deful sa affaire la. ñuy def lu baax. ñu ngi ci sax ci dëkk ci. tey tamit nag. mag ñu baax ñi. ñi fi des. kaay ma wax la nag ñi ngi xool nag ñiy def lu baax te bëgg. wax nga dëgg ku fi def naka dul noonu defi ni mag ñi teguñu ci seen bët ah. juum nga mm. dëgg de la seetaanul sax dinañ leen ko nekk mm. mm. dëgg la waay kon Baye Cheikh mm-hmm. réew mi ñu toll mm-hmm. xam nga sànq wax nga ci artistes yi mm-hmm. waaye tey boo demoon point e yegguma fa sax waaye mel na ni soraanoo dëgg la ca ministère ba de la culture xale yi artistes yi mm-hmm. ñëpp ñëw taxaw mm-hmm. ku ne ñu jox la ñu la war a jox très bien ah bon président de la république waaw waaw waaw ah, ah, moom moom mi ngi ah. ci danañ ko woo de ah déet kaay ma la fii suma yëf de waaw magu jàmb mm. ma ñëw damaa lay dama lay dagg ñëwal waaw ndax boo waxee ministre de la culture mm. tudd naa ko fi barki démb mm. ci daas bu baax boobu ñu naan ko zale lewoo zale seetaan na wëndeelu. nee na ma damaa wëndeelu. moom moom Zale. moom sale day koo xam ne. tubaarkalla maasàllaa diine ji ñu nekk. moom ci beneen côté bi la nekk moom Zale dina ko rek moom la Zale <laughs> waaye daa bëgg ngéwal bëgg wëndeelu <laughs> euh. ne képp kuy toog ci plateau bi mm. man dara dalaa la dina ko réglé ndax man mii la xaalis bi jaar sama loxo dina ko réglé <laughs> man mii la ministre culture di jox dara ngay ma ko jox naa ko bu mu génn mbay ma dog la ci la Zale moom euh, ma dolli waat la rek ma dolli waat la rek aussi Abou euh, Abdou Faye mm-hmm. puissance tey moo nekk de sa deuxième numéro ba tey autorisé gu autorisé gu ma la pour nga génn fenn tamit tey Léon Zélé la indi kii su ma ko bàyyee jeudi prochain Macky Sall lay tudd <laughs> xam naa ko. Euh, mais Baye Cheikh. Euh, léegi dafa tàbbi léegi fu am solo. wallaay Baye ginnaaw boo nuyu Ismaïla Lo. Mm-hmm. Euh. ndax noo ko jàlle ji woon ca Tëngéej. ma ànd ak mm-hmm. président Youssou Ndour. waaw baax ki keroog ba nu accès. Mm-hmm. dafa ne président Youssou kii dem Sandaya. man day soxna mooy sama yaay. wallaay mooy yaayam. waaw ñu waxante lu baax mhm. te Ismaïla Lo woyof dafa am solo mhm. loolu daf ko dal nit ku baax la de soo dajee moom ci mbooloo mhm. mi ngay seet loo yóbbaale ngéwal te loolu dafa am solo ban te te man Amadou Mbaye gar mi wax dëgg yàlla wax def rekk dem mbay bëgg naa ko xam ne ki ko jëf tamit waxal na ko waaye dafa tudd le ministre de la culture président Macky sal du ko jox cër waaye sopp nañu da fekke naa lu ma ay dajeem yu bëree bari waaye woyof dafa am solo ci digg piste bi lay taxaw di dox di jaabante di tontu nit ñi. ci biir waxtaan wi. mu mu di ci dugalaali culture ci biir ngay am looy jàng ci. te loolu dafa am solo de. waaye bi nu jëlee mbir mi. dañu ko jox nag président Mansour bay mm-hmm. ma càkk Fatim Ngoné ba bu baax boobule mu teg ko ci loxo Abdoul Aziz sooda sa bos dana ñëw ah d'accord sooda koo kay mbay dëgg-dëgg boo tëddee mm-hmm. eh, mbay nanga mel ne rek agsi na danga dem da nga dem te yëguma ah, <laughs> ah xanaa xanaa dafa am noo waxee rek li nga waxee rek ni nga waxee rek laa xalaatee mbay da nga dem te yëgu ma bay seex euh. bay seex pour su ma ñu cultifié léeg-léeg nga gis verbe buy dem yoo xam ne bay gale da ngaa dem te yëgu ma léeg-léeg verbe bu dem te du yóbbu deux heures dëgg la suba ma yóbbu ma yóbbu benn heure bi xam nga euh, Mamadou Mbaye bay seex <laughs> euh, foofu mu génn waaw ndeysaan ñu jël suñu benn ndijaay nga xam ni gis nga mm. Youssou Ndour yàlla na gudd fan. amiin amiin amiin yàlla na gudd fan dafa mën a joxe cër. <laughs> Eh, parce que ndaanaan yooyu nga xam ne ñun. Mm. dañ leen daan seetaan. Mm-hmm. di jàng ci ñoom. Mm-hmm. muy ay ndem si yàlla Cheikh Tidiane Tall. Mm, eh. sama nijaay eh, ay Idrissa Diop. Mm. mu baax mi ndaanaan yooyu. fu mu leen gis te di jox cër. Mm-hmm. Idrissa Diop ministre de la culture da ko woo def ko sage. macha waaye Idi dafa baax. ni mu mel rek la mel. Mm-hmm. Mm-hmm. day ñaw rek. bàyyi nanu. <laughs> Euh, bàyyi nanu cuun ak. ak euh, nanu jóob ak waaye nag sama bàyyi boobu mu tudd. Mm-hmm. démb rek dañu wax téléphone mooy sunu bàyyi Mansour Mbaye. bibliothèque bi. mu ne ma Babacar Babacar rek la may woowee bàyyi Cheikh. ne ma keroog bi ngay bi ngaa wax ci sa papa yaag papa Cheikh. ca buntu pale ba ca jamonoy Senghor kilifa gu mag moo fi wàcc jóge France keroog sa baay dañ ko jox autorisation pour mu dëgg san alaaji bi sani ma ne ko ah papa mu ne ma loolu nga fàtte ma ne ko loolu day dax yaa ma ko dee moo tax moom mooy li naan xale yi mhm. nañuy seeti mag ñi di waxtaan ak important important important baayu Cheikh Mbaye mhm. mu baax moom. mu baax suñu baay bu baax mu faatu baas mbéy. waaw mu ji baax. billaay dëgg la mbay moom it ku baax ku bëgg baax. bu baax. Mm-hmm. baax moom itam mbay ma caaka ñu ngi koy nii bu baax. Ah, waaw waaw waaw Baye Cheikh Baye Cheikh lanti nuur tey du baaxu de. wallaay mbay bu baax. nga ne lantinoor ah. téye diw baaxu ci. lu tax Cheikh Mbaye bi lay lantinoor du téye diw. déedéet déedéet lantinoor téye diw baaxu ci. ba pare Baye hmm. boo ko rombee sa dëgg dëgg lal la njëkk a nuyoo. dëgg la booy mouvement bi. sa dëgg dëgg la la te loolu. dafa am solo Baye Cheikh ndax nit. wallaay soldat boo gis dafa am camp. <laughs> mu ngoog léegi ajot Sow de Bousso. Ah. Euh, defe naa mën nañu euh, xoolaat euh, ay téléspectateurs. Mm-hmm. bu ko defee ñu jukki leen ngeen lijjantiku. 100000 mm-hmm. francs puissance wax na ko léegi mën na faj soxla. ñu ndokkeel bu baax. Khady Dioum. Mm-hmm. moom Adja Oulimata Dioum. Ah, nee na mu ngi mu ngi woote mu ngi woote depuis sànq. ndax Pape Bool mi ñu tudd. nee na crédit mu ngi jeex waaye dañuy dañuy dañuy jeex rek ku dugg rek sa wërsëg la. Kumba Mbor Samb. moom ma nga ñu fekkoon Angleterre. Seynabou Gningue Nadoura Sanor Penda Wade Madiaw Xarifal yaayu Papa Sidi moom it nee na kontaan na ci euh, teewaay ajot Soda Bousso euh, ci mm. émission bi mm. Bira Bar ma tëgg Fat Seck Mam Banda eh, ajot nga ma ci am ñu jëm ak firi ma tag Mam Banda maar ko do borom Fadal ñu ngi koy jaale borom Ndar lay tëggal ko jaale Bayam Dut Fatim di ko jaale Jabel mm. ak ñoom Kalidou ñoom ñëpp Pam mm-hmm. Samba mm-hmm. xam nga waa kër Bira Bar dañu am dëj ndeysaan càmm ko di suñu baay mm-hmm. famille Géej Njaay yëpp beneen ak ñoom ñoom sunu taawu ndey mm-hmm. ñu ngi lay nuyu jaara ak ñoom Ngone ak ñoom Moussa ñëpp ñu ngi lay ca Italie ca Italie nit yu baax yooyu waaw wax dëgg yàlla ñu fàttali nga ma El Hadj Ndiaga Ndiaye wallaay wallaay barki dem moo Ndiaye def na dëgg la dëgg la waaw adduna ni mel barki dem ñun ñaa baax ñaa ngay dem rek ak sama baay bu baax bi baay Cheikh moo tax ku El Hadj Ibrahima ginnaaw raay El Hadj Sowru ginnaaw raay a baay yooyu mm. maa war a dem ca dëj ba waaye mm. damaa tukki woon tukki bu ndaw dëgg la eh, may dégg maa ngi koy jaale nag waa ginnaaw na maanaam bul génn fenn bul génn fenn fay loolu la bul génn ñëw ah itam propos de ah. xale yi ah. euh, ma fàttaliwaat leen ni exclusivité bi bu yaboo ngeen xaar ko mm. ak euh, ajot Soda Bousso waa jëngal wax lu baax rek am solo am na ay projet yu bëri yoo xamante ni Soda ngi ci waaye laa su mën bay gar mi euh, ci nga may sant rek ci wëndeelu dama tase ak ay xale yoo xame ni ci yiñ leen di xelal ci jege mag ñi dañu ko def di ay xale artiste ah euh, yu am talent mm. dem nañu wuti nguuka wuti mag ñi ni ñu daan solo mm. reprendre mm. benn clip bu Kiné Lam boo xamee ni mm. ñoom hommage à Kiné Lam la ko tuddee ci ay xale yoo xamee ni fekkee wuñu nguuka fekkee wuñu leen mm. di seega fekkee ñu juróom ñaari sër fekkee wuñu aneen fekkee wuñu fuddan waaye terewul gëstu nañu ba réaliser loo xamee ni man chef d'œuvre laa ko tuddee euh, bokk na ci euh, découverte euh, wëndeelu ñu bëgg leen ko baaxee ci hommage boo xamee ni ñoo ngi ko jagleel ajot Kiné Lam daanaan li ñu xool ko xale euh, jóg euh, jar na tàccu ah jar na ah, tàccu c'est magnifique chef d'œuvre la boo xamee ni ci bi ñuy préparer émission bi man ak ñoom Bouba Ndour ci lañ ko mm. gis euh, ñu ne ji nañu ko bokk ak téléspectateurs yi mm. lii dafa am solo mm. di rendre hommage mag ñi di rendre hommage ndaanaan yi di reconnaître seen ay talent maa ngi waxtaan léegi nii ak ay influenceur ñoom Drizzy nga xamee ni xale yooyu ñoo nekk ci internet bi ñoom du ñu fàtte seen seen seen jos fàtte sa jos baaxul xam fi nga bokk dafa am solo li nga ne léegi judd bi dafa am solo nit day am jomm jomm li nga ne woon bul toppatoo mais del sóoraale sóoraale dafa am solo ajut so baykan loolu laa ko xam mu bàyyi badaloo eh, moom laa ko xam nga li pap tam mm. ko bul toppatoo léegi daal di applaudissé mm-hmm. euh, nit di rendre le hommage mm-hmm. ñu defal ko Kiné Lam mm-hmm. waaye loolu tubaab naan sa reprendre clip am waaye li tubaab naan sa def ay c'est ça ñoom xale yi lii déguisement la ñu ko tuddee bi mu koy way mais mag ñi nii lañ daan solo daaw de ji bi ñu koy way xam nga ñun sa xale la wallaahi xale yi màgg ba tubaab kala loolu neex leen ñu daan ko hommage mm-hmm. Mm-hmm. lii c'est c'est vraiment beau li sama nijaay naan c'est vraiment beau c'est beau ci ci ci li fi ki ne laam def mm-hmm. ak lim fi def xale yi defal ko lii tubaab kala defal ko lii lii moo baax pap nani nani nani nani nani loolu laay wax ne il faut reconnaître les faits waaw ba tey maa ngi ci reconnaissance rek lii bokk na tubaab kala luy sedd nit xol ndax def na ko fi Mm-hmm. international dégg na ko mm-hmm. def na fi lu ne mm-hmm. diggantam bëpp mbëfa riim ak jolli pello at chef yaa ngi fi toog nga ba taay agriculture laam toog xale yi defalee de morom borom jaami na yàgg fekke yàlla di di kontaan nam trop yeneen xale defal kina laam yeneen xale defal tubaar kàlla yeneen faatu duwel ñeneen defal leneen loolu parce la na leen hommage mm-hmm. parce que ñoom ñoo ñoo wane ñoo wane bi mm-hmm. ay Youssou Ndour mais ñoom ñoo wane chemin yi mm-hmm. ay Thione Seck ñoo wane chemin yi ba xale yi jaar ci Ismaïla Lo Mbaye Dieye Faye donc di leen remercier euh, di nangu seen jàmbaar dina ko seen i fait di reconnaître li ñu doon waa ñëwunu dara waa ñëwunu dara bu reconnaître tala Pape Cheikh waa ñëwuma dara bu ko yokkul bu ko wàññi kon loolu tubaarkàlla nañ ci dox te muy dëggu mhm. lu nu def muy dëggu mhm. ndax yàlla sax bëgg na lu dëggu mhm. waaw waaw waaw waaw te bàyyi naxe mbay ji mooy ñàkk gi ñaan gi ñuy wax bay Cheikh cuubu guro yi gén takk guro yi dafa génn ma gis ko léegi cuub yoo xam ne takku guro la takku guro am yoo xam ne rombal la rombal man ñoom xale yi déguisement lañu ko tuddee waaye ñi tabbi ci palmaan waaw gis naa ci ren di segg sax bay Cheikh <laughs> tubaarkàlla xale yi rang ñu dugal leen néegu góor ñi takk nguu ko yi sëru dënk yi ñu bàcc ko mu génn yi xale yu mooñ baxa meew yi génn waaw ku ci nekk dëgg-dëgg sànni sa càmmooñ ñi ñi sax gën ñu génne njàmpe ñii puudaru ñi def nguu ko dëgg la de ñi def aniinu aniin doonte ne bi lépp rombee mhm. cosaan daf ci feeñ dëgg la ña ngay tànn ceeb waaye nag ki ni ko jëfal moo fort mm, xale yi léegi traiteur la ñuy woo ki ne laam dafay nit ku yàlla baaxal amul ki ñaan damaa fekkee yu bari yoo xam ne yi mu def ko eh. te loolu dëgg-dëgg ku ñàkk ñaan moo ko mën. kooku aw ma sax te nag dëgg-dëgg wéyli wéyli na nag macha allah. Eh, eh, su wooyee ci sa biir xol bi lay dugg. te way maam xaar mbay ko ne mu mbay garmi boo bëggee gis ndaanaan lu mën a way lool tubaarkàlla tubaarkàlla mu ne da nga naan pëkk pëkk kinne mu yeew rek nga ne ko wayal su wayee rek nga xam ne daal tele bu mu te seen mu ne ko koy waxal koy waxal sabarak ji jox ma teraanga yu ma teraanga ma teeku ne ki dana am kan ngay waxal mu ne ma yéen ma ne ko dootoo ko doolu def ko fajee ah Baye Cheikh Baye Cheek daanan daanan soda. ajaratu Kiné Lam. boo gisee ndeysaan ndem si àll si na ñëpp jël jikko ndaanaan yi rek. loolu la Kiné Lam na ñëpp jël jikko ndaanaan yi. ndem si àll Cheikh Tidiane Tall. wallaahi wallaahi loo xëy taal boo gisee bu daan. soppay galas bu daan bu daan bu daan arrangé Kiné Lam. moo ko daan xalamal. wallaahi ndeysaan. wallaahi. Mm. Euh, bàyyi deer. Mm. Euh, da ciy xër. wallaahi dafa xam. ka mu daan arrangé musique am lan la mën. doguma la Habib Faye sa waa ji. Habib la meloon ci ajot ki ne lam. Habib fekkee na ma ajot ki ne lam balaa dugg studio naan ruyam bu tàng takk ndigam. ndeysaan bu taxawee ak Habib rek. wallaay mën na way benn yoon te du reprendre. xam nga Habib dafa demoon bu nee nii rek ba ki ne lam tourné ba. ba ni der. musuma gis loolu. parce que xam nga Habib way jeex na. Habib ndaanaan la woon. dëgg la te ndaanaan ay xam ndaanaan. koo bëgg mbay doguma la. ñëwal way dafa am ñaar. muy soo ko dee def te bëggoo ñaq. ñu ngi lijjantiku de lijjantiku leen woote leen ñu jox leen ci xaalis bi ñu ngi lijjanti suñu bopp. soo ko soo ko dee wax te bëggoo ñaaw. Ah. Ah. way waru dox. Ah. kii na Lam Fallou ndigg lay takk rek. mbay di mbay di joxoñ rek mbay di wax li muy wax. xam nga kan la may fàttali. <laughs> te ñu jël téléphone xam nga kan la may fàttali. sunu yaay jooju ndeysaan ajaratu astu njigéen. moo wayoon adduna nii laa salimata aduna ni la Salimata moo woy Fodé moo woy Fodé waaw su bàyyee jooyee ñu xandaalu moo woy moo woy Fodé mu Papa Diouf waaw waaw moo woy Melawtaan Melawtaan mu Souleymane Ndéné Ndiaye <laughs> moom la eh, xam nga tax xam nga tax ma ma fàttaliku ko li nga ne daan ki ajaratu ki naan daan takk ndigili eh. ajaratu astu njigéen bu daan way moom nii lay def ñun ni niy wagasoo garamb ah. mm. moom nii da daan wagasu nii garamb ba nii la daan def mais bu ne der mm. morceau boobu. Mm. dëgg la chef moo tax ci xale yi waykat yi. Mm-hmm. bëggoon naa mu am ku jël morceau boobu. dëgg la way ko wayaat ko. Mm. waaw wayaat bi lay bay mm. bay Cheikh euh, mm-hmm. doguma la damay dem damay dem fiit miit. fiit miit seen benn maire. bi ngay dem fiit miit barke yonent bi sama oto defi woon fiit miit. Euh, dama doon dem euh, côté côté côté film bi daal laa doon dem seen benn maire rek taxaw. walaay xaw ma kan la ma bëgg koo romb sama xel dem sama moom dama kii naa ko yóbbaale mhm. ma gaare ndek asu njege na ah, billaay lazi laa ilaaha maa ko yóbbu oh. kii nangam mu dem ndeysaan daanaan la woon àddina léegi euh, ñu jëlaat téléphone yi euh, ak sunu xarit yi ku dugg rek di nga am enveloppe bu toll ci ñaar fukki junni voilà ngeen ngeen ngeen lijjanti seen bopp ñun ñu ngi lijjanti ko 88 628 20 20 maa ngi euh, ndokkeel Papis Niang mi nga xam ni mm. moo réaliser exclusivité bi ñuy waaj a seetaan mm-hmm. ak euh, Adjatou Sodo Bousso oh, euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom daanaa na ko jur mm. di suñu yaay jooju nga xam ne ni xajoon na fi moom it yàlla na suuf woyof ci kaw ci kawam Adja Ndeye Ndeye Diarra Guèye moo àndoon ak Ndella Xalaas dama koy dagg doo ko dagg dama koy dagg doo ko dagg lu tax duma ko dagg xam nga yooyu yëpp euh, dafa musa neexal Dakar donc Papis Niang ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak euh, sunu xarit yëpp rek ak fu ngeen mënti nekk partout dans le monde moo xam États-Unis moo xam France euh, lu mu guddi guddi Fat Nafi Diagne Jamila ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ndax cofeel bu ñu am ci programme yu télévision Futur Média mm. alxames yi nag mm. dañuy wëndeelu rek mm. El Hadj mbay Garmi Mbaye Guèye Faye puissance mi nga xamee ni mooy consultant bi tey ajot sodd bu so ñëw fekk si ñu nii rek la ñu koy defee bu ko defee ngeen mën a euh, génnee ci seeni xel yenn souci yi mm-hmm. teg seen kanam yu baax yi mm-hmm. ndax yooyee dafay fatt ay turu mm-hmm. fatt turu nag wut mu am jamono boo xam ne dañ ci ne di jamono yu crise yenn saa yi nga dégg ay saaga yenn saa yi nga dégg ay wax yu ñaaw yooyu yëpp lu mu am ci réew mi ba bëri fi xam leen ni am na ñu baax ñoo xamee ni ñoo ngi fi te dañuy waxante lu baax. Mm. donc jotaay bi euh, bëgg naa muy couleur. Euh, mm. seeni guddi alxamis yi. Mm. ci euh, télévision Futur Média ñu xool ku nekk ci ligne bi jël ko doog àggali ci jotaay bi la tey ci 88 628 20 20 wala 88 628 22 22. ak yeneen numéro yi nga xam ne nii ñu ngi affiché wu. Euh, ci suufu écran bi. Ah, jaaro or bi it mën nañu koo maye. ak yeneen i xeetu teranga yoo xam ne nii euh, ñoo ngi ko jëlee sant yàlla boutique ñoom it ñu ngi leen di gërëm bu baax ñi ngi nekk diggante Colobane marché Gambie Euh, gërëm tamit euh, waa Minata création lu tailleur yi xat-xat. Mm. Euh, ñoom dencal nañu place téléspectateur yu télévision Futur Média donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm daal ci seen jàppandal ci li nga xam ne ni moom la ñu tuddee ñun waajal tabaski mille lay maye ba 2 millions donc ñu ngi leen di xaar ba keroog émission bi jeex allo. allo salaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. waaw dama ñu ngi sant bu wér. waaw Cheikh kër gi yëpp. a ngi fi ñu ngi toog ci salle bi rek di waxtaan. di waxtaan. kër El mbay Gar mi ñu ngi toog rek di waxtaan. waaw man de seen émission bi moom du soos maa ngi koy seetaan. jërëjëf. surtout seen émission bu bees bi sax. jërëjëf. wax yàlla maa ngi sama sama di leen seetaan. macha allah mbaa yaa ngi mbaa sa xol mi ngi féex rek li xale yi wax. wax dëgg yàlla matin bi tam damaa leen di seetaan. jërëjëf. waaw xam naa wax dëgg yàlla seen télévision bi moom. Hmm. télévision bu bo bu kii la daal bu neex la daal. jërëjëf yéen a ko moom yéen a ko moom yëpp dañu koy seetaan daal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. xam naa di leen lu bëri nag di leen sant bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf incha jërëjëf noo tudd. ah Moustapha Dramé. Moustapha Dramé ah Moustapha Dramé Dramé Dramé Kandji Socé Dramé Kandji ah, Socé ak Salman Farisou Salman Farisou mooy maamam su ma ko dégg waaw yonent bi waxoon loolu Salman Farisou Salman Farisou dafa neexoon baat mën alxuraan mu ngi ci Dramé mm-hmm. Dramé yonent bi bëgg ko lool mm. bu génnee ci jàkk ji rek mm. day day jël loxo bi teg ci dënn bi nef salman min nii mm. moo tax képp ku sant Dramé Kandji Socé ilimaan boobu ngay wax mm-hmm. benn lañu mm-hmm. moo tax ma teg ci Salman Farisou. Dramé dégg nga loolu. Eh, bay waaw maa ngi <laughs> bangal sa baaraam am nga enveloppe bu toll ci cent mille. ah tegal naa la ci dundu. ndeysaan. waaw incha teer sa maam. waaw ndax ndax sa maam. waaw sa maam waaw ndax ndax ndax Farisu sa maam. Farisu sa maam. Dramé. <laughs> waaw Tiga Dramé ndeysaan. <laughs> ak waa Ndramé yëpp bul tudd Tiga bàyyi ma libéré Ndra waa Ndramé bi gis nga puissance bul génn fenn bul génn fenn fenn fenn. mais kon kon kon Madi Dramé manager ah foofu la bokk tamit puissance sa kon Madi loolu ko tax doon wàlliw puissance Madi Dramé <laughs> ndar bi ah ndar ndar boobule tegal naa la ci dundu mm-hmm. diwlin soble Euh, euh, moutarde pomme de terre lépp rek pour bégal la ci euh, tabaski bi yàgg sa njaboot. Ah, waaw loolu de wax dëgg yàlla kontaan nañ kontaan nañ. wallaay yaa ko moom Dramé. yàlla na yàlla taxaw leen rek. allahumma jërëjëf jërëjëf Dramé jërëjëf. jërëjëf Dramé. yal ñu ngi lay gërëm bu baax. ayca très rapidement na yeneen i téléspectateur dugg ku dugg rek di nga am euh, lu ñu la teralee bëggalee la ko. Mhm. Euh, ci euh, télévision Futur Média bu fekkee téléphone boobu yemb na Pape Samba. Mhm. ñu jël ko alo allo. allo allo allo allo. allo waaw ñu ngi lay dégg kooku. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. man la Tata eh, allo. yaay booy ñu ngi lay nuyu Mbu. salaamaaleykum. maaleykum salaam yaay booy ñu ngi lay dégg di la nuyu. Tata ñu ngi lay dégg Mbu ñu ngi lay dégg mbub ñu ngi lay dégg. allo. mbuub <laughs> yaay mbuub waay. fi <laughs> plateau bi day palaato sama njaboot. wallaay mbuub. plateau bi riche na lool. jërëjëf mbuub jërëjëf. te te da ngeen a dawal te yaram yaram yëpp a daw. wallaay mbuub. ndax eh, Ndeye Mari Ndiaye ak man dañu sori su man. wallaay mbuub. rawatina nag sama télé. Mm-hmm. ndax. Eh, Youssou mi moom télé bi. Hmm. Ndeye Soxna ko jur. Hmm. Ndeye Soxna ñoo bokk baay. Hmm. Aliou Maysa Ndiaye am ko tabakali biram jaaja garbi. man suma kuree di kumba Faatuma nay ba sondo. borom yaay joxe bi. kooku lu mu dugg rek jom rek la duggee. dëgg la waay. jom rek la demee. moom bu ma am nag. tata Ndeye. jërëjëf. ndeysaan. Mm. xale bu baax nga. Mm. jëf Mbuub. xale bu am jom nga. Mm. jërëjëf Mbuub. mën naa ngeen passé sans détail. jërëjëf Mbuub loolu moo ko dal ku la xamul rek xamul la. billaay billaay. benn problème. Mm-hmm. amoo benn sew sew. Mm-hmm. nga nekk ak sama njaboot googu nag. Mm-hmm. soo bu sol mu baax moom mu fekk. am jom lool. fonk ndayam fonk baayam. mu ne mu woon la rasoolaay ba dugal ngeen àjjana. mën naa ko séddee. yal na la yàlla may gudd fan ak yéen. amiin amiin amiin bu. may jëy fay. gisuma kenn ku la bañ fay. déedéet amul jëf ci réew mi. kenn bañu la ndax xale bu am jom nga yéen. jërëjëf Mbour. bu sax sax nag ñu bari naw nañ la ndax ñu nga def rek fan. jërëjëf. lu bu suba àdduna képp xam ko. wallaay Mbour. yàlla na nga yegg niw yoon. amiin amiin boobu. jaar mi. ndeysaan moo mën a wax lu baax. waaw kay boobu. du may. amul kenn xam nga xale. bu amee jom da ko jox sax at yu mu amul xale bu tuuti nga ñëw garmi wallaay moog Salam Diallo footballandoo <laughs> waaye da ngaa doxal ci sa àddina yàlla sàmm wallaay wallaay Abdou doom jëm hmm. ah. sa doom puissance buur géwél ndax Abdou Buur Géwél maa ngi lay ziare bu baax. wallaay mboobu maman. gis na lool. wallaay maman yow lañ tuddee lépp maman. ak ndaanaan yu am jom rek su tafe. ci yow lañu ko jàngee. waaw waaw jërëjëf yaa ko yaa ko jàngale. yaa ñu woon yoon bi tata Ndeye. ak a baax. ndeysaan kii baax. Hmm? bu ba su ma ko fekkee fenn. Hmm? Hmm? moom abi dañ may teral. bu ba seen yaay. màkk dañoo tafe Arafat. màkk Abi Ndour dafa daw fekk ci ma laxasuma. dana mën a yaay dugal seet buuba ndax mu jox la dara. yaay seen yaay am solo. dafa am solo yal na leen yàlla sax amiin amiin amiin bu yàlla bu kenn toogee seen amiin amiin amiin amiin amiin amiin bu xataan naa lool de jërëjëf jërëjëf bu ñaanal ay Mari Ndiaye Gawlo ak Pape yéen dugal jërëjëf amiin amiin amiin amiin amiin kontaan naa trop dama ne woon du ma nelaw mukk te jotum wallaay wallaay wallaay wallaay Pape Cheikh ndeysaan merci beaucoup jërëjëf bu Alaaji Malick Sow mi ne la nuyul ñu ko ma ko lu bari nuyul ñu ko lu bëri eh, te te nga ni te nga ni te nga ni ñu ngi koy xaar moom it ci émission bi Pape Bouba waaw moom ñu ngi koy xaar bëgg bëgg naa mu ñëw ndagal ma waaw bëgg naa mu ñëw ndagal ma ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar alaaji Boukounta Ndiaye jërëjëf yaay uh-huh. jërëjëf Mbuub eh, ci Tata Ndeye moomu laa bëggoon ñu des tuuti mm. Mm. xam nga jamono bu ne ak la cay xew mm. dëgg la xëy na léegi ci rajo yi ñun lañuy dégg ci tele yi ñun la ñuy gis waaye ñoom bokk na moom Tata Ndeye na ci ñi njëkk a dégg ci rajo tey bu nit amee fit parce que bu njëkkoon bi rajo bi ñuy doog a sos ay rajo ay télé. Mm. ay tubaab a ñëw créé mm. ko installé ko. ñu am ay mm. télévision nationale. rajo Gambie rajo Dakar chaîne national oh. bu njëkkaan sax euh, euh, nettali nañ ma ni. Euh, ñu bëri daaw ñu am fit. làkk wolof ci rajo. Mm-hmm. tata Ndeye mi bokk na. ci génération bi njëkk di làkk wolof. ci rajo. di def émission culinaire Sud FM. bi mu demee ba Magal. ay doomam yu mel ni man dugg ci rajo. mu daal di beru. di def ah. chaque dimanche. chance lu mel nii mhm. boo jàppee El Hadj Mane Mbaye Garmi bu la neexee dem ci tataam tata nday suy kilifa hmm? fonk nga ko ba pare mu mën a wax lu baax eh, donc bokk na ci animatrice yoo xamante ni war nañu leen rendre hommage ci yàgg def rajo ci won ñu yoon donc bu wootee tey mënuñu dul rafet lu na xale yi ñoo ko dul xam waaye ku xam rajo xam média xam valeur kii woote li bay euh, hmm. tata nday sax hmm. bi lay teg sax rajo ak way fexe ba baaxu ko woon. Mm-hmm. tata Ndeye dafa ñàkk ki ñaan. Eh. gis nga Pape Bool mi ngay wax nii. ak man wax si nga li mu génn yëpp tata Ndeye moo ko boole ñu mu woy. Mm-hmm. xamu leen sax. ay Ndeye Fatou Diop Ndeye Fatou Diop. ay nitu tata Ndeye la. Mm-hmm. tata Ndeye moo ko booleeg Pape Bool. doomu tata Ndeye ak Penere la ak Penere Ndeye Fatou. Ah, mu nga Bordeaux. loola ma yàlla baaxul koo xam ne tata. Eh. yow mi di toog ñaari fan. yu la woon pour seet ci loolu de. wallaahi ñaanal la. ci la dëkk soo ana bàyyi Cheikh. Mm-hmm. barki démb rek woo na ma. wallaahi ana sama sooda ana sama doom ji. wallaahi kon ne. wallaahi ma woo da nga wéet. ku baax la def yu baax moom kenn gënu ko. tata ndey mag mu yaru la. Mm-hmm. mag mu baax la. mën wax lu baax mag mu bëri valeur la. Mm-hmm. balaa muy kontaan tubaarkal la. bu ñu ñëwee ci sacré kër këram. ay mbokkam rek ñoo fa ne. wallaahi ndey askan nu gaw la bi mu fi ne tata ndey musu fee wax ñombe. déedéet tata ndey kenn musu koo wax tubaarkal la xam nga gis sa le tiit mhm. tari tara alam tara kayfa faala rabbuka mhm. war na koo moytu alam tara alam tara kayfa faala rabbuka waaw gis sa naw rek tiit rek tiit waaw tari alam tara kayfa ah. sooro doguma la de faala rabbuka am na benn géew bi woote fii de bay ah. xanaa ngeen fexe koo dugal rek mbay fi nga nekkoon nag neex na trop oh. ah, ma ne waaye ki ne la Mam Bamba xam naa dafa bëgg a dugg ay yaay na dugg mi ngi ni sonn na lool xam naa waaye sooda soo tabbee ci gor su amul boru nawle. déedéet da ngay dem ci tata Ndeye. man léegi damay gis. ci yoo xam ne sa wujju rek nga ko daan gis. nit mu xool la rek yërëm la. wallaahi tata Ndeye. moom daf naan xale yi géwël yi. elle est sensible xale yi dama leen a yërëm. parce que damaa xam li ngeen di daj. wallaahi sedd barke rasulullah. ba pare yiw. sedd wallaahi wax bi wax bi bu wax bi dérangé du moom. Mm. dëgg la te ku ma gis yéene na la jàpp. dëgg la vraiment vraiment dëgg dëgg wooteem bi daal. riis ah. na loolu mais Baye Cheikh dafa ah. wax lu rëy mm-hmm. Mm-hmm. dafa am loo xam ne lii kilifa réew mi moo ko war a reconnaître mm-hmm. sunu maam yi dañ doon toog ba mu yàgg ñu woo ñu ne tey wiye seng tey la ñu woo ca pale ba dañ koy tappal médaille am ñu xam ne ñii dañoo mérité. dëgg la ñu am ay médailles ci réew mi. tata Ndeye daf ci bokk tata Ndeye ci la xam nag président de la république. garme waaw yooyu mi ngi koy xalaat. waaw parce que dama gis. mu ànd ak le président yu Ndour. Mm-hmm. bi bàyyam bi génnee àdduna muy El Hadj Veseng. ak El Hadj Ndiaye Rose. Mm-hmm. mu tiitleeg moom. Mm-hmm. ma xam ne yokk na ci xar mi karaw président ànd ak staff bi yëpp ak tiré di lutte ci kër alaaj du Ndiaye Rose ñu ne noonu mu xuus Sacré Cœur ñu tëj Sacré Cœur tey koy jaale mu ne mbay jëy fay ba mu génnee nit ñëpp di ko tàcc yu ne ko lii du ay njaga njaay de lii la ko wax waaw waaw njaga daal di mu ne yuusu ah lu ma bëggoon yokk na tey jàpp boppam ni nit la rek. réew mi rek lan ko jox. li nga tataan ndey mi. waaw Baye ba may doog a toxu Sacré Cœur ñoo jàkkaarloo kër. dëgg la. boo ko gisee bu liggéeyee ba wàcc. Mm. nuyoo bu jekk bi. eh boo xam ne mën nga cee jàng dara. waaye nag c'est c'est normal. kan ka dénk la. bàyyi bu dawlo alaay alaaji bu Kunta Njaay bàyyi Pap Ngañ lañ ko dénk bàyyi Pap Ngañ lañ ko dénk xam nga boo xoolee euh, yar googu sax ngay gis ci Pap Ngañ wallaay Pap Ngañ dafa yaru de boo ko gisee ci plateau bi ak boo ko fekkee mm-hmm. bëri kersa ragal ko bëri kersa Pap Ngañ ba pare ay tam man nit rek laa xam dëgg wax Baye Cheikh bëgg baayam ba sax day mel daf ko ragal nit rek ma leen gis ñu ànd muy jaale si Ablaye doon apprenti Baye mu toog rek def nii ragal sa yaru man waaw man damay bëgg jommiwu la la mm-hmm. nit ki daal nag ndekete. Mhm. boo ko xoolee métier mhm. doo xam ni mu dëgg mhm. waaye nag mu jàppale nag. mbokkam. ci kër gi. nga bàyyi Cheikh man daal li may wax moom mooy. na mag ñi di waxtaan ak xale yi. wëndeelu rek. xam nga xale boobu dugg sànq. waxam ji am na solo trop trop. dëgg li mu jàngat. ci émission bi. tey xale. xam nga kooku ñamul toogal ca salon boobu. amaan yaayam wala baayam wala ay ndijaayam wala ay rakam. mi ngi waxtaan ak ñoom. waleelu nag Baye Cheikh. mbaay mbaay rek mbaay mbaay rek waaw. wëndeelu moom mbaay mbaay rek. léegi bala balaa gën a guddi. puissance. demal demal demal. jaale boobu mu wax. président Macky Sall maa ngi koy nuyu au passage. yàlla mooy def njiit kenn du sàkkal boppam njiit. déedéet peuple bépp bëgg ko nag. mu am jom lool di jéem waaye mënewul wax. Adjaratou Marème fay sal féete ko ndeyjoor. Mm. lépp luy social mi ngi koy def. ne woon naa leen su ma ko bàyyee tuuti président lay nuyu. waaye. lii damay ñëw ci puissance rek <laughs> ndax ci jaale bee tax sama baay la wax. <laughs> wee sëñ fay waaw loo foofu am naa fa parole. baay Cheikh ñaan naa la ko sëñ <laughs> sëñay puissance ku mu jël sa loxo yëkkati ko. dëgg fal na la dëgg la de. kon yu suma jigéen Ndour foofu. Uh-huh. am nga fa part de ci gaal gi laa ko fekk. ci gaal gi la baay Cheikh. may ma ma àggali ci lool <laughs> xam naa li lay dawloo. boo ko falee gaal gi laa ko fekk. dara jëyant bi. <laughs> mi ngi saa mi ngi saa boxeur. lépp saa yu sundur. bëti di tàkk yow koo ni loxo yi mu fal ba ba léegi. daal di rek le président Macky Sall bi. wallaay wallaay jërëjëf mooy Cheikh sa papa bëgg na dugg. wallaay donc nañu bàyyi Pape nañu jox Pape Samba mu organiser loolu. waaw waaw voilà euh, sama da ngay jéem a ak. Adjot Kiné Lam voilà puisque ñu ngi ñoom nga tàbbi. ñu ngi ci ñu ngi ci voilà ñu ngi ci dernière partie bi. Ah. balaa ñuy tàbbi nag ak euh, ndaanaan yooyu. Mm. ma bëggoon itam ñu ñëw ci exclusivité Adjot Soda Bousso bi. ndax gëj nañ la dégg mm. gëj nañu la gis. waaw papa dinañ ko xew loolu bëri waaye tey nga ni faaw rek nga ñëw am loo bégalee sénégalais yi. vraiment man mënu maa fay sénégalais yi man dama war góorgóorlu rek bàyyi di góorgóorlu waa ñëpp na ma ñaanal. Mhm. yàlla dëgëral man ndax ndeysaan xale laa aussi. Mhm. Euh, yoon wi tubaarkàlla ñu ñu ñaanal. Mhm. ñu bañ a def benn erreur. amiin amiin te mag ñi bu ñu génne seen loxo mukk ci ñun. lu ñu war a wax la ñu ko war a wax. billaay billaay. waaw ah, defe naa bàyyi maa ngi gërëm réew mi yëpp. di sant nit ñi. gis naa lépp. dama tënk rek. gis naa lépp a tout vu. jërëjëf. Mm-hmm. waaw kontaan naa di gërëm sama famille. Mm-hmm. waa famille Alioune Ndiaye Géej. Mm-hmm. sama famille kër yaay sama famille kër baay. xam nga sama baay yi dafa génn àdduna bu yàggul. waaye ñu bari bëri yëguma waxuma ko sax kenn. ndax néew ma fi woon. donc di gërëm waa Gite. waa Ndar yëpp di leen gërëm di ah, gërëm suma mbokk yi. ba bi may ñëw suma mag laa àndal. Mm, Ousmane. Ousmane di suma lépp. waa kër Adja Bintu ak Abi Sène. ak Mami fay di gërëm ñëpp. di gërëm mënu ma daal wax mais mm-hmm. gërëm naa Sénégal yëpp di gërëm sumay xarit mm-hmm. yoo xam ne xam nga ne tubaarkal du ma sa wax mm-hmm. sama diggante ay solo defe naa doyatu kenn seet kenn seet ne da maami koon wala ndamba mi ci kaddu ko ci yoon cofa ma bur woon moom ci confinement bi ak dalal xel dama jëm dalal xel <laughs> confinement ak dalal xel ngay boole <laughs> gërëm kii di bëgg a gib nag bi daan ak Sadi Ba Ndoye c'est Moussa Mbak Alassane dama ko yéene muy borom way wii di bëgg a mm. muy muy kan man ak moom ba tey déggoo ci wooye maa ngi ko bëgg naa la ba di la woowee yaay kooku moom tubaab kàlla tu ku na sañ nga billaay ku ne bëgg ngaa mën a doon diwalam day binta Cissé bira nag Sadi Bandooy moom li mu gis ci man bëgg ma maa ko xam sentiment rek la ànd ak man mm-hmm. waaw bira nag Sadi Ba biram yàlla na ko yàlla defal jàmm te lii ñu ko defal ni yàlla na ko jikk ndax bëgg na ma mm-hmm. fonk na ma mm-hmm. eh, yéene na ma ca ba may xale la ma taral ba tey bàyyiwu ma ak yeneen ak yeneen Assou Mbaye sama rakk ji moom it borom traga yu ndul lim jéeri ngoone baddo waaw ma fali ko ma daa ma tëx ba naaru naaru naaru maritu añ il fekki tabure ma tabure wallaay tabure ma tabure ji xam ne tamit teraanga bu ma defal rek teraanga bu mat la mm-hmm. waaw yal na yàlla guddal faram amin amin euh, euh, xam naa ñoom sax ci euh, organisation da nu ma déggul damaa bëggoon ñu xool exclusivité bi bu ko defee ñu jeexal ak ndaanaan yi nga xamee ni bëgg mm. nañ ñoo jot ajot ki ne laam mm. mi ñu hommage léegi nii ak mm. ay xale ndaanaan yoo xamee nii ñu ngi leen seen Euh, euh, buggoon jokkoo itam ak Pa Mansour Mbaye moom it sànq ba tey mu ngi réagir euh, bëgg jokkoo ak ñun kamu ma lay ñaan rek nga bàyyi ko mu chargé tuuti bu clip bi jàllee ma jóg jël ko bu ko defee ma <laughs> <laughs> voilà donc en même temps bu ngeen wootee di ngeen am ci ndimbal yi vingt cinq mille ba deux millions mm. quatre vingt huit six cent vingt huit ak yeneen numéro téléphone yi nga xamee ne ñu ngi affiché wu ci suuf écran bi kon euh, euh, ñoo koy seetaanandoo mm-hmm. exclusivité la puissance mm-hmm. clip buy doog a pare mm-hmm. clip buy doog a pare uh-huh. lii euh, clip buy doog a pare bon uh-huh. ma topp leen kon ci ni ngeen ko bëggee ñu jël ki ne laam alors que demoon nañ ci annoncé exclusivité bi ba pare uh-huh. mënoon nañu bàyyi ba mu jàll ñu dem ci ajot ki ne laam mais ñu jël ko yaay booy ñu ngi lay nuyu dégguñu la ah waaye Baye Cheikh maa ngi lay fay sama doom ji. kontaan nañu lool lool lool lool laam. man maa gën a kontaan ñëpp barki Serigne Touba. Hmm. sama xol bi sedd na lool. jërëjëf laam laam. yaay sama xarit. loolu am na. maa la bëgg sama biir xol. Hmm. ni may ñaanale sama njaboot noonu laa lay ñaanal. leer na ma leer na ma. Hmm. yal na la sutura yàlla lamb la ba daj. amiin amiin ngay dajeeg ndimalul borom bi fottal amin amin amin la yàlla kawel la ca kaw làq la fu làq yëgu yéegal la fu la jotul amin iyaaka amin amin amin <laughs> tubaarkàlla macha allah ma kontaan ci ci clip bu rafet bi wallahi hommage la Aj Mansour léegi la ma doon woo. moom mi ngi woote depuis sànq ndeysaan téléphone garmi bi doyewul léegi la peneere moom la jeg di waate. léegi lan ma doon woo. wallaay laam ñu koy seetaan en xam nga lii. ku mu ah. doyul dara dootu la doy. wallaahi laam yaa ko liggéey. may gërëm ñi nga mm. toogal noonu ci plateau bi. Mm-hmm. muy Mbaye Dieye Faye. Mm. jërëjëf. mu ñàkk ci ñaan nii seen mm. sëñ Birame Gueye Kelle yaay Awa Diagne. jërëjëf. nit ku ñàkk ci ñaan ma yàgg moom lool. wallaay wallaay fay sama waa mm-hmm. may gërëm ñoo suma jigéen garsi tàmbali mm-hmm. ngeer bi. jar sam binte jaraaf ndenjeer jar so sum so tormbu moo ni woon kite laam jara bu la chevalier ordre de mérite ale baaba jur mi ci jaayaan mm-hmm. ale baaba ci jëmi def si katak ci ndakaar bu doon tëbas ci jóor su ma séenee ma paas ma mm-hmm. wëlbati ku bokk ak moom ci ndey soxna muy sama xarit di ma dimbali bëgg ma di ma dimbali yërëm ma di ma jàppale mm. ah, ci lu nit ci lam lu lamañ du mm-hmm. moom xam na man xam naa yàlla xam na wallaay laam may gërëm bu baax gar mi moomul sawet mhm. sama sang boobu nag bëri valeur moom war a arampate bokk ndey ak baay moom war a jur mu saax tubaarkàlla macha allah muy sama mbokk di sama sama lépp di gardien du temple bu baax mu yaru moomu wallaahi wallaahi nga xam ne nawleem bu ne bàyyi nga ko xel ah. ndax ci ah, yar ak teggin ak eh, sutura eh. hmm? ba gi nawleem fonk nawleem mën a wax lu baax mën a wax lu baax di ko dox di ko wax. bàyyi Maodo sori bu fa sama doom jooju. Hmm. nga xam ne dama ko bëgg sama xol. restaurant mu gën a seet ci France bala ma daan yëg. jikkoom la. Eh, dama teral ci biir dama teral ci biir. Hmm. yaa ko moom. dama jàppale ci biir dama jàppale ci xale bu baax mi ñoom toog. Hmm. na yàlla may jàmm. amiin amiin amiin amiin boobu toog ma toog ñoom maa ngi leen di gërëm daal. ma lay xamal nag Baye Cheikh. yaay booy. bëgg googu ci ko koy fay. man de sama xol bii rek laa am dugal la ci biir barke yonent bi. li naan woy wayaat du mën a woy dafa fekk nga woy ku baax waaye yow la kenn gën. waaw woyaatal yaay Sénégal yëpp ràññi nan la. woyaatal yaay yëpp ràññi nan la samay mbokk. Mm. samay am di jàmm xam nga lii. lii mm. ku doyul yaram. déedéet wallaay dara su la doy dara su la ci en tant que artiste. waay yëgoo tinoo ñu monté. Mm. clip bu rafete nii. kay xale yi léegi la ma doon woo. waay papis léegi na ma pare signaler. Sénégal yëppay seetaan bi fi waaw barke nañ ci wallaahi yow Baye Cheikh nag maa ngi lay ñaanal. amiin la mm. maa ngi lay ñaanal ci màggu yàlla buur bi te tabaaraka wa taala yàlla na la yàlla defal sutura amiin waay amiin waay amiin waay man yàlla laa lay ñaanal may ñaan sama borom yàlla nga daje ak ndimbalul borom bi yàlla nga daje ndimbalul borom bi yàlla nga daje ndimbalul borom bi li ma wax sama xol laa ko ku dajal ndimbalul borom bi rek dina xam sama borom daje na ak yow barke Seydina Mamet mm. sama xol sedd na ci yow mm. sedd boo xam ne mënuma koo wax ndax xam naa ni man maa ngi sama clip boo xam ne maa bëgg dinaa ñëw présenté si ko def pare na. mais mais mais yaay mais yaay ma ku la raw mais yaay yaa ngi may dégg. <laughs> waaw maa ngi lay dégg. léegi dama lay invité jeudi prochain. ci kanamu sénégalais yëpp incha allah jeudi est-ce que pare nga pour ñëw ñu wëndeelu. waaw waaw. kon jenn jeudi bu soobee yàlla daañu na daa wëndeelu ba nga yaakaar na maa yàlla. ba miir kon mbaay mbaay. waaye <laughs> mais mooy Sénégal rek. man yaa yuusu yuusu yow. yow yow Sénégal. jërëjëf aji sama waa jëte barzak yan xas dëkk ndaw. amiin amiin amiin maa leen di ñaanal kontaan naa sama xol ci dugub yi. alxames alxames alxames nañ la xaar wallaay mu ngi woo gar mi depuis sànq billaay billaay wallaay laam man moo ma dugal la cour des grands. waaw waaw ma njëkk a yóbbu jàkkaarloo en 1983. waxtu bi ca Ndogo Naar kon man. asoosamaatul lu ma am moom la. di koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ginnaaw waajur yi. di sant borom bi di sant sama jëkkër ju baax ja ca Touba. di ko ñaanal yal na yàlla yeesal yërmande ci kaw. waaye maa ngi leen di sant kontaan naa. waaye moo mun a wéy jërëjëf waa Kiné Adja Kiné. jërëjëf lu Thiam Adja Kiné. Thiam. loo wax Khady Samb. ah Khady Samb. sa yaay loo ko wax. wax ko rambal rambal ko tuuti rek bàyyi sax jot loolu. ah ok. ah. rambalal rambalik sa ndey ju baax ju tuuti. jam ñu ñu ngi yaaleeg moom. jam eh. ñu xeeb ñu yaaleeg moom. ma dem ma mooy kuy mbaba. bu nu xeexee ñoom comme nu jiwee woo. kooku maa ngi lay jaay. jam ñu ñu ngi yaaleeg moom. moom yow yaay booy yaa ñu xet yaa leen moom yaa ci nu mbekkuy mbab eh, ba paate maar xujata taa ma te nga mu rengoon rab maan eh waay baat bi demul fenn de alamin day baayam yaa ñu ci may xet dafa ne man daan jaxuy ñëw ma ko du baayam neena mus benn géwël attanuma benn gawar mu sawat ci gawaram neena benn buur xajoowuma aram baake moko daram baake xay saram baate aram baate soxla cuut may samar digeen yaake moko ma sa ñene di ci waalo da jël mbaar jam ñu ñu ñu le mo ma ngay jooy dégg nga loolu yow aw xëng bu. <laughs> yaay baal xam ne. <laughs> waaye du ko nangu Lam jërëjëf Lam baal xam ne Lam moom yàlla yàlla dëggaloon. Ah. li ma naan li ma naan Youssou Ndour li ma jaaxal ci yàq Kiné Lam. Ah. lu ngeen di gën di jëm mag. Ah. di gën mën way. walaay walaay bàyyi Cheikh man musuma gis loolu. non yow tam oui ma. ah Youssou booy Youssou Kiné Lam booy na Youssou. boobu nee na dagg leen heure bi jot na waaye pareegu ñu Ndour. pareegu ñu Ndour. est-ce que xam kamu daa teel a taxaw. dana bu ko nee na heure bi jot na mais pare ñu nduur. ma ne ko danu mappat. gis nga ajaratu Kiné Lam. Ah. bàyyi ay way. ak micro. wax nga ko keroog. c'est important. Ah. boo gisee li mu def nii garmi ne ko ñëwal rek mu ñëw. te xam naa ni sax mu ngi doon nelaw. Mm. Mm. gis nga ndaanaan mm. boo ko nee ëpp. moom ak fasu naaru góor a yem. bërit lay def. bërit lay def. ba pare ah ay way nag. Mhm. vraiment dañu koy jàng. macha allah yow alxemes. Mhm. dana metti de. dina metti de mhm. te di nga ko may beneen bu dul bi laa ilaha illallah. danaa ko solal leneen. ba pare buur keroog bi muy ñëw mbaxane maa ngi woon ci digg bi. <laughs> waaw tey da koo wàcce te xam naa ne bu ñëwaatee alxemes mbaxane mi fii lay mujjee. nee naa la sama idole gi nii mel ni musóoru law bi fii la nar a mbaxaneem nii de. fii la nar a ñëw ak moom. <laughs> sama idole gi nii toog. léegi nag beneen ñaar fukki junni. wala yeneen ñaar fukki junni laa bëgg joxe puissance xanaa ñu jàll rek. ci li annoncé léegi nii euh, euh, le retour euh, de Adja Sodo Bousso. retour bi nag nii rek la ko couleuré. exclusivité la. ñun ak yéen ñoo ko njëkk seetaan ci télévision Futur Média vidéo bi nag Papis Nia moo ko réalisé Sodo Bousso yëngal jamono ànd ci ak Mbène Diatta Seck ndaanaan bi. kooku il faut ñu sàkkal ko guddi. ci wëndeelu waaye en attendant ñu xool lu bees li nga xamee ni moom caat.

Look at my koy caat da daan réew yëg boppam li nga am sa yat bee ko may jërë nga mbéy saaxa yaa nga lambaay mbenn jaata sekk way ci lu neex clip bi léegi lay doog a génn ngeen am ko en exclusivité euh, lii moo nekkoon mbaay mbaayu wëndeelu bi euh, ci télévision Futur Média émission bi nag saa yu ñuy jeexal dina am ab mbaay mbaay te wëndeeli moom balaa neex am mbaay mbaay <laughs> voilà su su su su su fekkee bëgg ngeen ñun en tout cas bëgg nañu mm-hmm. donc clip bi nga réaliser ko mm-hmm. may ko fan si mm-hmm. waaw waaw tubaarkàlla gis nga ko xam nga Pape boobu ba tey yëngal jamono waaye maa ngi préciser nen ca yëngalin wax nanu teye ñu yaru <laughs> loolu waruma <laughs> dan ma ko yoree waruma donc way euh, kooku baax di sama yaay di sama lépp day binti siise muy surprise ndeysaan <laughs> taal mu tàkk rek la ci am moom it waaye lii yàlla na ko jikk yàlla na ko jik mu yëngal jamono amiin ko ñaanal yàlla bi naan ak Sadi Bandooy moom it yéex gi rek lañuy lañuy lañuy jooy waaye lu jot yomb ndax def naag man way bi may xale ba tey ma ne ko ah. moom bàyyiwuma di sama lépp di sama mag di bëgg di woyu attana boppam nee bëgg naa la ba di la wooyu waaw moom mooy lii du tey bàjjenu ndey caba sek kon waaw te mu doy grâce ndoy ndoy ndoy grâce ndoy daanag Sadi Ba ndoy ni ma sagalee mooy tubaarkala bu ñëpp toogee mu ne ana sookaay maa fii ñëwal mhm. boobu sag rek la géwal am ci géram di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yaa ko jikk wooyu yàlla na ko jikk agatu ndey wadd ndeyam tubaarkala ñoom ñëpp yàlla na leen ci barke Serigne Babacar defe naa yëngal jamono waaw mhm. xam nga temps su ma nañ koo baal mhm. waa Alain Alain mu super étoile moom lif loolu waa xam nga xamoon taasu mën nañ koo baal mhm. est-ce que musical na musical na trop baal ngeen ba pare clip bi rafet d'accord d'accord xaw ma daal ku ko réalisé <laughs> waaw ki ne euh, euh, taasu lu neex di <laughs> jaay taasu mën nañ koo baal ndek ah, mais mais mais euh. xanaa xamoo taasu tëgg la rythme la ah oui ah oui macha allah taasu mën nga ko téye nit ñi jàpp rythme di baal waaw parce que Euh, dafa taasu dafa wax la bu ànd ak rythme. Mm. dëgg li nga wax fii. wallaay loolu ëpp na. dëgg la c'est Birame waaye c'est normal. yëngal jamono mm. bu yëngal jamono. voilà man mosuma dégg lu mel ni. ba pare nag ki nga ko wax. Mm. bokk ci nag. ñi nga xam ni nag. réew mi. sa jigéen la. ah ça va jigéen ah. yuusu la. ndey bint kenn du ndey bint. <laughs> wallaahi waaw baax loolu. si yàlla ma si mi daan ci fi ay. wallaahi tëmbandoo woy wi daal tubarkalla tubarkalla addina mm. yépp mm. xam nañ ne tubarkalla way wi neex na mm-hmm. gëstu nga ko nag mm-hmm. waaye li mu la may mm-hmm. li nga ko delloo dafa foor ne bu ñëpp toogee mu ne ana sooro mu ne mu ne ko sooro kaay mhm. la Birama Fatim mayoon Lamine Gueye mhm. tubaarkàlla jar na way <laughs> ah dëgg dëgg oh, way nga nag koo xam ne mbay way ko yàqul baat macha allah <laughs> mbokk yi mu ngoog kon ajot sooro bu soo ñu ngi lay gërëm bu baax oh, euh, euh, euh, gàtt na neex uh-huh. na dafa waaye lu neex du doy uh-huh. bu am na noo ko waxee keroog hmm. ne nañu wëndeelu hmm. waaw ci bi nga walaay jaaxa borom ndaje hmm. defe naa maa la ndaje bu neexee day tas bu neexee day tas waaye bulaay du tas sama rakk ji wëndeelu. ok euh, euh, wëndeelu Moussa Ndiaye. day euh, saan saxal day dem ci ndey xadi ñag nag. Ah. wëndeelu morso bi da def lu ne. dinaa la woon mi woon image boo xam ne. Mm-hmm. man ak moom la. Mm-hmm. day saan mag ma lëng baaj bi def anin ba. Mm-hmm. moom danaan wëndeelu. fekk day saan takk takk takk téere tànk ba. kooku sama dina la jox archive yooyu. defe naa kenn doyulul. sama rakk ji yow boo ma wooyee ma ñëw. defe naa Gale. Eh, Ndiaye. Abdou. waaw mooy li ki na la am wax rek. dëgg la bàyyi ko yokkul yaa wàññi. dëgg la Youssou xamoon noo koy def waaye moom it xamoon nu mu lay def. ndax bi nga ñëwee di xale di sama rak yow defe naa tubaab kàlla du ma la baal dara. ndax lii rek moo baax. waaye yow lu la lu la waay wax rek man la ko waxal. Mmh. donc booy góorgóorlu man sa mag ji Sakura mbar ko farloos Béthio damay kontaan. di la ñaanal yàlla dëgëral la. amiin yàlla bàyyi bàyyi la ci sunu kanam. amiin amiin gërëm man nag dama bari xarit. Mm-hmm. waaye maa ngi mënumaa lim. Mm-hmm. waaye di gërëm samay mbok mm-hmm. di gërëm sama mag yi nga xam ne saan sama yaay newatu fi ñoom ñoo fi ne ak sama wajur yi ñoo ma wéttali ba man xale laa coow laa ma topp rek ñun ñëpp ay ay bébé lañu waaye yàlla moo nattu léeg-léeg ñu juum léeg-léeg ñu def ay ah, yëf yàlla ah. nattunu waaye ñu ngi gërëm bu nu limee dinañ juum mm-hmm, mm-hmm. su may xarit bu ma demee bitim réew mm-hmm. su may xarit laa fay nekk ak ñoom jaaxa kor papa euh, mami kan euh, la ñoom Fatou Gueye Ndiaye xadi yëlli Diagne sama mag bu ma limee dinaa juum waaye tubaarkalla Ngoné darbe darbe darbe bi di nuyu ñëpp ndax man mënuma lim mhm. waaye kontaan naa ci ñëpp di gërëm tubaarkala clip bi gën a léegi mhm. samay doom yoo xam ne ñoom Fat Sané nday mati kan mu ngi nuyu esprit chip ñooy defar loolu sama doom yi ñoom a si mu a waaw mën nadi bin sa njaay tubaarkala laaw jum moo xajji mhm. sama waa nga xam ne dana maami koon wala nambaaw mi ci cadre ci yoonu coofak dana ma jëlee dafa tàng mu dantal kale coofak mu féexe <laughs> ah surtout waaw bi ay solo waaw nga xam ne moom damay tënk rek ak a baax te bàyyi yàlla bari valeur ba bari valeur ant yem mbay wallaay sama mag ji nga xam ne ci war a ci yoonu Banjul sama yaram mbay mi ci waraan ci Banjul jëriñ caam wallaay ma limee dinaa juum wallaay di nga juum sama mag soxna seen ànd ak sama mag euh, mami bu mhm. ma limee rek dina dinaa juum sekk waaye maa ngi gërëm Sénégal yëpp bàyyi jërëjëf di wax na ne tubaarkala namm naa leen jërëjëf di kontaan ci defal leen jàmm amiin amiin sekk réew mi am jàmm amiin sekk ñu ne ci jàmm amiin sekk te bu baax amiin lépp rafet merci waaw vraiment kontaan nañu en tout cas mm. euh, bëggoon nañoo toogaat ak yéen ba ci kanam budul woon ak euh, li may xëy euh, ci mm. suba si bu 9h jotee fekk ñoom Fatou Dieng noppi mm. kon xam naa dinaa continuer mën na ma ko ndax defal naa leen ko ba tàyyi waaye nag lu juba jeexul jugu fa alxamis dañuy dellu si waat dégg ngeen léegi adatu ki ne laam mi yëngu ba dugg wootee ci mbégte jeudi prochain prochain dina ñëw. Euh, ci euh, jotaay bile. gërëm équipe yi ñu àndaloon yëpp Bouba Ndour mi nga xam ne ni mooy produire produire wëndeelu. Mm. Euh, Pape Samba mi ko réalisé ak équipe technique bi yëpp. ñoom mm. ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Mm. Mbaye Dieye yow it amuñu sa fay. defe naa alxames daañu dellu si waat ba miir incha allah. waaw Baye Cheikh. jërëjëfati bi ñu yàlla mayee. Euh, ñu teewaat fi mhm. yàlla na ñu mayaat ñu teewaat fi alxames amin amin euh, yàlla ba sunu xel fattu amin amin mbégte la ci ñun mm-hmm. ñu toog fii mu leer ñu ni téléspectateurs yi ñu ngi toog seeni salon di ñu déglu muy ci réew meeg bitim réew foo mu mën a doon mm-hmm. diaspora beeg fépp mm-hmm. encore une fois am mbégte Euh, tey ñaanal ñëpp jàmm mhm. waaye dama ci sànni benn kàddu mhm. moom mooy di jaale suñu xarit boobu mhm. nga xam ni moom mooy Pape Faye soxnaam waaye soxnaam génn àdduna l'artiste comédien Pape Faye donc daal mm-hmm. Pape Cheikh mm-hmm. di ziar ñëpp mm-hmm. euh, te naan sama waa kër lu ngeen ma bëgg rek bëgg naa leen lu ko raw ba ci hmm. ajaratu maam Ndiaye mu baax moomu euh, mu leer ñu nag waa Gàmbi ñu ngi ñuy seetaan hmm. ab baas di chéri ci lel jëng ak euh, Fatou hmm. sunu waajooju nga xam ni euh, lu mu baax doyul Baye Cheikh Garmi ajaratu Soda puissance alxemes fii dana wàcc de incha allah ajaratu ki na laa maam Bamba. Eh, moo fi war a teew. Mm-hmm. bu soobee Maulana. Mm-hmm. mi maye. Mm-hmm. kon nag téléspectateurs yi kontaan nañu. yal na yàlla def jàmm ci réew mi. ñëpp am jàmm ñi feebar. wér ñii nga xam ni. Euh, seen loxo jotul seen digg ginnaaw waaye yàlla na romb seen digg ginnaaw waaye te yàlla mën na ko yàlla na yàlla def jàmm defal TFM jàmm defal Youssou Ndour moom mi borom kër amiin de Youssou Ndour ah. moomu sax ak <laughs> euh, Ndiaga Mbaye ah. euh, Pape Samba li ñu waxante sànq waaw moom lañ leen di yeetale mm. dëgg la moom la ñuy tàggatoo ak yéen mm. ci hommage boo xamante ni defe naa Bercy la woon Sorano Sorano Sorano Sorano déedéet bii laay wax de bii Bercy la woon de waaw bii Bercy la woon waaw bii la woon mhm. lii daal laa bëgg euh, ginnaaw wëndeelu nañoo ak yéen ba ngeen miir moom lañ leen di tegal rek yeetalee leen ko euh, bu ko defee ñu mën a euh, tàggatoo mm. ci guddi gu mag gi nga xam ne nii amoon naa ci mbégte lool ànd ci ak Adjot Sodo Bousso El Hadj Oumar Mbaye Garmi ak puissance mi ñuy gërëm puissance ñu ngi lay gërëm bu baax la jeudi prochain incha allah mm. man mii ma am sa ngërëm mm-hmm. Mamadou Mbaye ni ma ko waxoon sànq mm-hmm. ki la yéenee bokk yow jataay jataay lu mu tuuti tuuti tuuti rawatina nag seetu réew mi wallaahi ndeysaan seetu réew mii nga xam ne tey bu fekkoon ne dañ naan ah, championnat la dañ naan Atlético Real Madrid nga woo ma ma toog àddina bépp di ma gis may wax lu baax mm. bokk ci wëndeelu mi nga xam ne le puissant réew mi bëgg la way lépp tubarkàlla mm-hmm. ma bëgg ko loolu mu bëgg ma ndeysaan waaye nag sa xarita li gën a neex mbay gay fay mm-hmm. su ma mag ji sañ-saña birim ngay kew yaayu ba mm-hmm. nga boole ko man jërëjëf toog waaw bàyyi Cheikh li nga ma daal waaw li ma wax dafa rëy nga ne maay sa consultant wallaay <laughs> loolu yomb <laughs> waaye dee ma bàyyi ma perso <laughs> waaye nag bàyyi Cheikh xale yi téyeer yëpp nee nañ nu ñuy def baj leen di ñawal di ñawal émission bi ah. kii nag waaw ah, ku ko ñëw Mamadou Lamine Sam ku téré ko ñëw doo ma laaj ki ñaw li waa ku ñëw li Xaadim Bay plateau broderie hmm. yàgg naa ñëw moo génn hmm. moom da laa doon waaj a ah. moom nga ah, doon waaj a gërëm laa doon waaj a gërëm waaw seetal waaye ñëwal waaye Baye Cheikh ñëwal wallaay moom laa doon waaj waaye ñëwal waaye Baye Cheikh eh? xam nga yow xale yi dañ laa bëgg waaw ñoom Modou Gueye héritage <laughs> Mamadou Joxaane Pape Seck Touba Couture ñoom ñëpp ñu ngi waajal <laughs> sarak jooju lamp mais moom nag moom waaw moom moom ndeysaan xam nga li ma neex ci ñoom mooy danu tarbiyu seen mag ñu baax la muy bàcc mbay bàcc mbay bàcc mbay xaadim dafa tarbiyu eh, bàcc mbay xaadim daa bëri lamp tarbiyu xaadim mhm. waaw waaw waaw waaw rafet ah. donc xaadim ñu ngi koy gërëm bu baax plateau broderie bay Cheikh euh, El Hadj ma joxe rek sama njaal waaw ci ajatu ndey jaañ du décce hmm. mu may mën a wuur mu may mu kan ah waaw moo ñàkk taawam boobu di Moustapha. Mm-hmm. suma yaay ca Paris. Hmm? Ah, ñu ngi koy jàll àddina yëpp di ko jàll. Mm-hmm. mu nekk nag mag mu baax. mu mm-hmm. am valeur baax. bokk tamit ci famille Amadou Thiam Fatim Sey. bokk ci mag magi Ndakaaru yi nga xam ne kenn du tudd ñu baax ñi te du dugg. kon aji ndey jañ mu du décce. àddina yëpp mu ngi lay jàll. sa taaw bu baax boobu nga ñàkk mbay wallaahi mbay. xanaa rek nu dem nag Yamoussoukro. ca dëkk ba nga xam ne nii fa la maanaam Koulibaly nekk. Fatim Bamba mi nga xam ne ni mooy épouse du premier ministre. wallaay wallaay Amadou Mbaye Garmé ngi lay jaal. sa sa jëkkër ju baax jooju nga ñàkk. tubaar tubaar tubaarkalla. waa ba mu waa waa waa Yamoussoukro yëpp di la ko jaal waa Côte d'Ivoire di la ko jaal. rawatina ak Habib Biaye mu baax ma. Habib Biaye xaritu eh, eh, xaritu Butuut. wallaay Guèye Butuut ak Maguette Keita. ak Gaynaba Sall. ak Saara ak Nafi. ñu ngi leen di jàll dëgg dëgg nag premier ministre bu baax boobu di ko jaay tamit ministre euh, ministre bu baax bi. Mm-hmm. nga xam ne moom itamit tubaarkàlla ñëpp am yaakaar ci moom ca Côte mm-hmm. dëgg dëgg daal di wax ne daal ñàkk nañu ku baax. Mm-hmm. waaye nag yàlla kenn mënu xëccoo ak moom. wallaay kenn mënu xëccoo ak bi. naa jeex na El Hadj kon waaw ba ba ba ba alxames incha allah. waaw ba alxames incha allahu taala bàyyi Cheikh ndaanaa na ngi ñëw nag kii ñëw ku jar a bàyyi xel. Hajat mm-hmm. Kiné Lam invitation bi moo ko def. moo wax ne tubarkalla bëgg na jàkkaarloo ak Baye Cheikh. wallaahi Mamadou Mansour bëgg dama koy dama ba ba ba alxames. wallaahi eh, waaye lem neex na waaye du jiw da ngay jàpp ma ci ku naan ditel bi daanu. foofu di tàggoo yi mu ñu eh, yeetal leen ak hommage bi nga xam ne ni Youssou Ndour defoon na ko jagleel ko El Hadj Ndiaga Mbaye mm. eh, di ndokkeel ñëpp si Silla suma rakk la. Mm. Mm. moom it bokk na ci téléspectateurs yi amee nopp garmi di ndokkeel itam maam Khoudia Thioune maam Khoudia mu xarit Fatou Guewel moom it kontaan ci euh, sa teewaay tey euh, Awa Gaye euh, moom it moo représenté Gambie fii ci Sénégal ambassadrice bi fii la ne mm. ci télévision Futur Média moom it na lool ndeyam ja xam naa ni bu fekkee woon lii Awa dina ci kontaan Marème Ndiaye Euh, Gawlo mu jabaay Ibri Càkkoma Njaay ca Paris mm. Mm. Euh, moom tamit euh, nee na bég na lool ajatu Rama Jaw Joodo Mbay suma rak yooyu nga xam ne ni mm. ñoom laa tuddee les Linguères de Baye Cheikh ñu leen di ndokkeel bu baax Awa Jàllo itam kenn demul mu des en tout cas ku lim ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu jeexal ak hommage u Youssou Ndour mu jagleel ko Alaaj Njaga Mbay daañu dellu si waat xam naa bu ca kanamee tuuti tombé ak 6 heures du matin ci lu njëkk di ngeen ànd ak Babacar Fall RFM matin Mhm. Babacar Fall bu paree 6 euh, heures et demie ngeen àndandoog euh, Fatick ak rédaction bu télévision Futur Média Chérif Dia ak ki nga xam ne ni mooy Cheikh Tidiane ak ñi bokk ci rédaction bi yëpp ñoom bu ñu noppee bu 9 heures pile jotee ma doog jël antenne bi euh, proposer leen version magasine bu yeewu leen. Mhm. bu demee ba 11 ñu dem ci yeewu leen plus yeewu leen plus nag di ba jeudi man ak Amina Poté ñoo koy def vendredi bi naa ci ànd ak Cheikh Thierno Ndiaye. alaaji la ca Makka seex la ca Nimzaat donc suba dinaa pelloog Cheikh Thierno Ndiaye à partir de 11h30 ba midi 30 ci télévision Futur Média ma mi fay Thiat ñu ngi koy gërëm Ousmane ak son mag yooyu nga xamee ni ñoo bëgg lool ajot Soda Bousso dootuma ko gërëm xanaa rek euh, euh, di leen ñaan ngeen ñaanal ko bu baax mhm. Soda def retour génne single bile euh, jagleel ko ajot Ndeye Binta Cissé yaayam xaritam waaye mhm. sénégalais yi ak ay fansam la ko jagleel tey mu ñëwoon def bi ci wëndeelu li ñu bëgg rek mooy di bëggalante te gëm naa ni bëgg ngeen ci rendez-vous jeudi prochain Adjatou Kiné Lam mooy nekk invité euh, bu jotaay bile gërëm bu baax Pape Samba mi réalisé ak équipe yi ñu àndaloon waa service digital ñoom Pape Jean ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm maman Henriette mi nga xam ne nii moo maquillé ak ñoom seen ñoom ñëpp kontaan nañ ci ñoom Kati création yi yëpp may sol moom moo ko réalisé donc Kati ñu ngi koy gërëm bu baax xam naa Xaadim euh, euh, Mbay plateau broderie fi lekk alxames bële naa dem mos loxoom ndax loolee ci la may habillé booba RTS 2S boobu tuddul woon sax 2S en 2003 euh, atelier ba nekk euh, ville euh, demoon nañu ba ku bëgg a ñawlu Obasanjo bu baax sax boo ko yóbboo ci tailleur da nga naan tailleur bi ñawal ma li Pape Cheikh di sol RTS 2S booba tag Khadim Mbaye plateau broderie moo ko daan réalisé donc moom ñu ngi koy ndokkeel bu baax jërë ngeen jëf ñu yeetal leen ci wëndeelu bi Youssou Ndour ci hommage boo xamee ni moo ngi ko jagleel alaaj